asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi leen di nuyu di leen dalal ci Daaru Salaam di nuyu waa dëkk bi yépp di nuyu pël ak wolof séeréer ak bàmbara njaago ñëpp maa ngi leen di nuyu ku lim juum di kontaan si ñëw bi ngeen ñëw ah ma laaj lool Alay Isa kontaan nañ ci moom ndax bi ñu ànd moom ci koñ bi jàmm ak salaam nañu ànd moom mu nekk nit koo xamante ne si nit ku bëgg jàppale ay mbokkam nit ku bëgg dimbali ay mbokkam Euh, daaw am na lu fi jot a jaar ñu koy rafetlu trop ndax loolu dafa ku jël poosam di dimbali ay dëkkandoom wër dëkk bi yëpp amul xàjja amul ñëpp la jox kon loolu kontaan na ci bu baax a baax. asalaamaaleykum mbokk mi. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw maa ngi rafetlu seen teewaay fii bu baax a baax waaw association bi moom li ma sa xam loolu lay wax fii moom daaru salaam la xale yu am jum ñoo fi nekk surtout nag alaji Issa Sow moom laa gis mu taxawal association bi mu woo ma mu wax ma mu ne li nga def de rafet ne macha allah di jënd ay suukar di jënd ay kafeem di ko dugal si biir dëkk bi di jàppale yenn daara yi ma ne li nga def de macha allah lu jaar yoon am na ñu ko defoon nag continué wul kon ko yow commencé nga ko dañ lay ñaanal yàlla mu continuer ndax nit ñi boo leen bëggee am di nga leen di jàppale. mu monte nekk boo fekkee anam bi politique dugg si te yàlla rek mo tax nga jóg inshallah dina réussir li ma commencé def daaw tay rafet li ma commencé def daaw tay tey macha allah rafet lo loolu de la gis association nak dafa laaj ay partenaires yo xamante dinañu moñ taxawal di jappalé ci li ngay def loolu nag dañ koy ñaan yan naka yàlla jàppale mu amal ay nit ñoo xamante ne mën nañ ko jàppale si li muy def te yàlla tax ñun nag lépp loo xamante ne politique dugg si bu fekkee yàlla rek dinañ ci dugal suñu loxo. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp gennaaw bi ma sante yàlla ak yonent bi sant sama ñaari waajur waa groupe Aladji Issa bi nag. ci kaw ci kanam rekk ci lu baax ndax ay xale lañu ñu ngi taxaw waa dëkk bi teg seen tànk foo xamante ne ñun ñëpp dañ ciy kontaan lu lu ñu am dinañ ko bokk ak ñun. waaw association bi de daanaka yàgg na yàggul daanaka si koor gi daaw rek lañ ko sos Alaaji Issa Sow moom moo ko sos propre boppam. alalu boppam la ko sosee mu wooñu si daanaka bu ñu si woowee ñun waa koñ bi rekk la woowoon waaye instant yi fu mu nekk nii dem na ba yaatu na ba daanaka ba dëkk bi yépp jot na si wax dëgg yàlla mu ngi def liggéey bu am solo ndax li muy def ñaq boppam lay jël di ko dimbalee demul si kenn mu ne ko dimbali ma pour ma dimbalee ay nit wax dëgg yàlla fum tek tankam tànkam gor gol bu bax fum tek tankam fofu la. di wax rek si alaaji alaaji la ma doon wax rek lay wax ci mom wax ci mom mom yomb na ak euh, mbir mu mu taxawal ni ndax lu rafet la ndax lima don wax rek nit wor ba ngor rek nga ëkkati ben doomu tandrama rek jox ko kooku yalla rek mo am sa pay mom mi xalat lolu nak ba ànd seek ay nit pour defar lolu lolu dan kay sante di dolle sante sant ndax alaaji mom fii la juddoo seen wet màgg ñun xam nañ ko bu baax nitu jàmm la nit la koo xamante ne toujours si lu rafet lay dox lu baax lay dox lii nag moom képp ku si mën a jàpp ko ne da nga siy jàpp ndax ku si jàpp ko yëgu yàlla rek nga yàpp ndax nit woor ba ngoon nga fexe am loo dajale jox ko mu def ko si biiram kooku moom fay gi nga si am noo xam nu mu toll association bi moom dañ ci kontaan rek kontaan ci bu baax parce que alaaji li mu def jàppalewul kenn ñun jigéen ñi la jàppale ndax li mu joxe ñun jigéen ñi presque booy xool ñun ñoo ko utiliser ndax nga woor ba ngoon ñu jox la tàndarma jox la suukar jox la madaar jox la omo kooku jàppale na la ci cadre yëpp jàppale la pour nga set jàppale la si yépp dañ ko ci sant di koy gërëm di ko ñaanal di ñaan yàlla lii mu dem a dem bu àgg foo xam ne moom sax du ko doon xalaatee. waaw message bi ma leen di jox mooy ànd takku liggéey jàppalante. loolu laa leen di wax ndax nii mu commencé rafetlu nañ ko lool ñoom ñi ànd ak moom buñ ko jàppalee danañ jëm kanam ndax bëgg lu baax weesuwul am sa benn dërëm bokk ko waa dëkk bi yépp te xàjjale woo. am na daara boo xamante ne yóbbu na fi ay ciment loolu gis naa ko am na daara boo xamante ne. am na ay ciment yoo xamante ne jot na ko fa yóbbu loolu moom gis nañ ko waaw loolu moom gis nañ ko waaw wéeru koor tamit bu ñëwee tamit gis naa li muy def moom ak partenaire yi muy àndal xale yi ndax seen taxawaay daal dañ leen di ñaanal yàlla na yàlla na jëm kanam ndax koor gi bu xesee ñëw ak lu dul koor dañuy ñëw taxaw waa dëkk bi kër gu ne ñu dugg jox la kafe jox la suukar jox la saabu te nit boo ko fekkee ci këram day am lu mu mànkale boo ko joxee suukar jàppale nga ko boo ko joxee café jàppale nga ko koor gi nit ñuy taxawoo même bu dee ñaari fan ñetti fan sax danga ciy gis sa bopp ndax liñ lay indil dinañ la indil saabu indil la kafe indil la suukar indil la tàndarma te loolu rek lañu soxla ci koor gi boo doon jënd ñaari fan yi di nga toog ñetti fan doo ko jënd xam nga loolu tamit baax na ñu ngi taxaw taxaw bu rafet xale yu baax lañu lépp loo xamante ne am nañ ko rek bokk nañ ko ci nit ñi ñun moom loolu lañ gis wax dëgg yàlla. daaw moom xam naa ne li ñu jot a liggéey bari na bariwul ndax daaw jot nañu dem ci mel ne mbaawaan am na benn daar bu fa ne jotoon nañ faa yóbbu ceeb jot nañ faa yóbbu dawlin ak omo ak suukar. am na daara bu nekk fii si koñ bi tamit jotoon nañ faa yóbbu ceeb ak dëwlin ak sukkër am na daara tamit bu nekk ci biir dëkk bi fare muy daaru Cerno Dia jotoon nañ faa yóbbu ceeb ak dëwlin ak sukkër waaw daawul def nañ loolu koñ bi tamit seddale nañu jigéen yi ñi omo góor yi ñi am suukar ñi am tàndarma waaw loolu lépp defoon nañ ko daaw ren nag xam naa ne incha allahu taala bëgg nañu mu gën a yokk loolu tey am naa yéene dina ko dina ko ëpp ndax ndaw yi mobiliser ñi nga xamante ne ñu ngi nekk si gannaaw kii bi gannaaw alay isa wax dëgg yàlla takku nañu bari nañ lool te ndaw yi am Pastef lañu ndaw yu am jom lañu tamit nangoo génnee seen alal def si. maa ngi leen di tàgg tàggatoo tàggatoo boo xamante ne yàlla bu ma yem fii di leen sant di leen gërëm di wax ne. na ñëpp jàppale alaji isa ndax mbir mi yombul def ko defati ko moom moo yombul te dëkk bi yaatun yaatuwaay boo xamante ne si kenn ku ne nga jël benn dërëm wala kuddu kafe nga nga jox ko loolu tabaarkal gàddu ko yombul kon na ko ñëpp jàppale waaw euh, dégg naa ñuy wax ki Sémico ñoom dañuy jàppalaati Euh, ñoom buñ ko déggee nañ ko jàppale. waaw ñi may déglu ak vidéo bi fu mu mënta egg moom dañuy ñaan yàlla nit ñi mën fi jàpp ñoo mën a xam ni lii fii si Kër ab Ndoye la commune de Kayar suñu doom la suñu taalibe ndax moom moom mi ko taxawal fii si daara gii la jàngi fii la dalee baax kon nag bu demee ba xelam maj xalaat lu rafet indi ki fii di ci wut ndimbal dañ koy ñaanal mu réussir waaw mu ñu sañoon kay euh, mbir mi dem e-, ba egg si président Macky Sall mu financé ko indi si dëkk dimbale daara yi dimbal néew yi doole yi fi ne loolu lañ ko koy ñaanal. la may wér ak gudd fan ak képp ku si ànd ak moom ak ñun ñii di ay magam ñu fexe jàppale ko dooleel ko lu way am si am am ak nu mënti tollu nga baña a nga jàppale ko ndax jàppale ko mom moy dooleel l'islam rek dooleel l'islam rek ñun mom dañ si contane di si contane bu baax di ñaan yalla yalla yalla kawel kaweel njortam ba lepp lu mu si séentu yalla yàlla dolli ko si ba mu nekk loo Senegal ni dañ koy rafetlu ba mu génn tasaaroo si àddina bi yëpp ñing ngi koy ñaanal di ñaanal kep ku koy jàppale wassalam ñun kenn ñu ci soñu pour ñu jàpp ci ñun ñoo leen war a soññu yéen pour yéen ngeen jàpp ci mais ñun waruñu ñu soññu parce que alaaji lii muy def ñun la ko defal ndax li mu joxe ñun ñoo ko utiliser presque booy xool góor ñi defuñu ci dara te alaaji wax dëgg yàlla li mu def moom ñun dañ ko rafetlu ñun waa koñ bi bu ñu amoon ñaar rek ñu mel ni alaaji si daaru salaam kon dégg nañu fu sore sore parce que foo ko fekk muy dox si loo xam ne day boole day jàppale di dimbali waate kon maa ngi leen di sant di leen gërëm mm. di kontaan mm. ci lii